jokkook Matar mu defal ñu le point foofu ci conseil constitutionnel euh, tuuti dañuy dugg ci suñu premier thème bi nga xam ne mooy euh, euh, concerné recours bu Amadou Ba jëmee ci candidature bu Bassirou Diomaye fay ak Cheikh Tidiane Dièye ñu bëri nag jàpp ne wala boog ñuy laajte ndax recours boobu mën na jàll wala déet ñu def un tour de table bu ko defee ñu apprécier quelles peuvent être les chances parce que euh, bu ñu fàttali ko conseil constitutionnel si son communiqué daal di xam ne ni euh, candidat yëpp si seen euh, dossier dal di nañu examiner dans le fond tey Amadou Ba def benn recours définir les quatre points yi nga xam ne moo tax mu leen di toppee recours boobu ngeen ñu invalider seen candidature tey biram Birame Khoudia lan moo nekk sa analyse ci recours yooyu ndax jàpp nga ne mën na nekk loo xam ne mën na jàll. d'abord euh, fi may jëkk commencer mooy euh, lan moo waral par exemple amadu Ba euh, war a def recours ci Diomaye Faye bu ko defee ñu daal di dellu sewaat Makhtar Cissé asalaamaaleykum grand bi aleykum salaam Makhtar yaa ngi au niveau du conseil constitutionnel depuis sept heures du matin ngir toppal ñu li nga xam ne mooy liste yi ñu war a publier Ah, foofu noonu nga xam ne mooy conseil constitutionnel tey lan la ñu mën a jàpp ba tey dara génnagul. Mhm. waaw euh, grand Abdou di rafetlu bu baax émission bi di nuyu internet yi nga ñu lay seetaan. Mhm. di la si euh, Sénégal 7 euh, ñu nekk si diaspora bi ñu nekk si benn gox gox yi di nuyu également say chroniqueur euh, Sa Wolof ak le le ministre Farba Senghor ñoom Birame ak imam Al Amin Dramé. Mhm. ñëpp ñu ngi leen bàyyi xel di leen wax ne que fi nga xam ne mooy au du conseil constitutionnel il est toujours vingt ba léegi amagul benn liste bi nga xam ne waa conseil constitutionnel. ginnaaw ba ñuy càmbar ay dossier euh, yu ni mel ak yenn recours yi ak yenn réclamation yi ba léegi donc affiché benn résultat si lu ñeel li nga xam ne mooy la publication officielle liste bi nga xam ne ñun war dem si jogante élection présidentielle bu février 2024 mhm. mais rek lu ñu euh, recours yi am na trois recours yi nga xam ne ñoom war nañ ko càmbar ak plus de cinquante réclamations à traiter par le conseil conseil constitutionnel mu mel ni décide bi nga xam ne Sénégal yu bëri ñu ngi koy nëgandiku si biir réew mi ak si diaspora bi hmm. tax mu xaw a am li nga xam ne mooy ay yéex-yéex waaye lu ci mën a euh, soulever rek daal di rappeler li nga mooy les mémoires par rapport ak Sénégal yi ñuy déglu mooy que euh, euh, dossier Diomaye Faye ak nga xam ne mooy dossier Cheikh Tidiane

mun nañu wax ne awut si élection yu mais nag nekkul li nga xam ne ñun en tant que détenteur xibaar yi nga xam ne dañuy xaar ñi nga xam ne mooy waa conseil constitutionnel duñ ko daal dëggal dafa nekkoon des faits yi nga xam ne xawoon na lëmbee li nga xam ne notre paysage par rapport ak fii suñu au niveau du conseil euh, constitutionnel mais si fàttali également ki nga xam ne mooy Amadou Ba mu ngi toppee ki nga xam ne mooy euh, Bassirou Diomaye Faye ou coalition qui l'a investi coalition qui l'a investi donc loolu noonu moom la la ko toppee waaye xibaar yi ñu jot rek mu ñuy xamal ne euh, dañ ko daal di dàqani waaye wóorugul ñun daal dañuy xaar fii ba minuit wala fii ba vingt trois heures cinquante neuf xaar ba xam liste bi ni mel fan lay mujjee mais nag lu ci mën a également mooy li nga xam ne Pa Moussa wax na ko sànq par rapport à sa page page Facebook également kii di Ndiaga daal di koy mel raqandi ay jamono ñu loolu lu ñu mel euh, ko si élection présidentielle nga xam ne moom lañ jëm. d' accord jërëjëf euh, Makhtar ñu bàyyi la rek nga ngeen wëyal. ñu espère que d'ici 23h59 dinañu euh, publier. li nga xam ne hmm. mooy liste boobu nga xam ne moom la ñëpp di xaar. jërëjëf si Cissé depuis le conseil constitutionnel pour le Sénégal 7 alors Birame yaa ngi woon ci tomb boobu moo nekk d' ailleurs suñu premier thème. Euh, recours yu amadu Ba ak li ñu ci dégg en terme d'information pas encore sûr mais ñu rek euh, jàpp ni euh, conseil constitutionnel moo yore le dernier mot tàmbale woon nga ñu bàyyi la nga wëyal. pourquoi le recours pourquoi Amadou Ba dem def recours situation bi mu nekk la parce que Amadou boobu ma ko dee jàngat dafa mel na ku nga xam ne véritablement dañ ko sànni ci géej te mënul fay muy dem bay xam nga loolu boo gisee xobu garab di nga ci jafandu. parce que da yaakaar ni loolu dina la mën a sauver le premier la première erreur bi mu def mooy euh, ñëw ak APES def fa meeting place bu nga xam ni Ousmane Sonko dafa defoon meeting alors la comparaison devient facile l'opinion nationale et internationale dañuy gis mobilisation bi nga xam ni Sonko defoon na ko ak mobilisation bi Amadou Ba def foofu la jëkk daanoo alors loolu moo tax il est complètement affolé def recours recours bi lu mu ci wax amul dara dara dara lu ma ci mën a euh, wax ni dëppoo na ak yoon appartenance à un parti fay euh, Faye Diomaye Faye bu fekkee dissoudre nañu Pastef il est toujours électeur et boo nekkee électeur tu es éligible mi ngi mel na ñu ni tey Biram Khoudia dissoudre nañu Pastef moom du mën a wote ci loolu waxuñu ko fen su fekkoon ni Diomaye fay dafa jël récépissé Pastef déposé ko là on dinañu am lu ñuy wax wala boog mu jël ay récépissé boole ci récépissé Pastef déposé kon dinañu coalition bi déposé peut-être irrégulièrement et cetera mais je ne pense pas que dossier bi am benn euh, euh, connotation Pastef donc c'est quelqu'un qui est bu nga xam ni ay nit a ko wóolu jiital ko mais loolu constitution bi daf ko wax daf ko nangu donc foofu dafa daanu complètement mais nag foofu la mënoon jàpp li tax aussi mu def loolu mooy peut-être xamul woon lu nekk ci dossier bi xam nga bu fekkoon ni jomaay Faye dafa def candidature indépendante dañ koy dàq dañ koy dàq parce que au fond toogul un an bokkoon na ci kii donc moom xamul ban cas de figure la mais Diomaye fay a été bien encadré et véritablement je crois que il a le droit de déposer il n'est pas encore condamné te loolu saxul defu ci defu ci état il n'a pas fait état de sa condamnation mais illégalement et cetera mais yow ba bu yoree récépissé ki yore pis récépissé ki yore récépissé ñu dajale ka ni coalition Biram Khoudia mais loolu dara dàqu ko et loolu je crois que loolu la Diomaye Faye def donc amul benn chance euh, nekk ay yu légal lañ légalement constitué te attention même ñu ngi wax légalement constitué tout ça gis nga boo xasee ba déposé pour parti politique ñu yëkkati récépissé de dépôt jox la ka mën nga def saa ay activité c'est légal ba ba ñuy génne li nga xam ni mooy autorisation parce que loolu day dépendre ci ki nga xam ni mooy administration administration nag kenn du ko xaar mhm. te loolu dafay ñëw ba duggaat ci mbiru Ousmane Sonko la validation de sa candidature effectivement moom mooy nekk suñu troisième euh, thème bi nga xam dinañ ci euh, débattre ñu dem ci Saa yow aussi nga wax nu sa gis-gis ci recours yooyu nga yaakaar ne mën na nekk lu jàll wala da ngay adopter la même position que Birame Khoudia waaw recours xam nga kenn ku nekk sañ nga ko mais nag est-ce que Amadou Ba moo def recours bi wala hmm. dañ ko koo def def def ci place am parce que mënuma jàpp moment bu ñu wax ne lañ koy kii koo xam ne dem nga ci Ziguinchor di inaugurer euh, mémoire di Joola hmm. ki nga xam ne mooy président conseil départemental bu Ziguinchor ak euh, adjoint maire bi xaw ma mhm. cérémonie bi mu ngi mel ni Macky Sall bi mu demee di inauguré BRT ya Racine nga fa gis ak Ahmed dara ak euh, kii mhm. kilifa yi ñooñ ñu bàyyi leen ci ginnaaw loolu am ñu mu déranger bañ soufflé ko moom mu ne na ñu ñëw wane ne nañ ñëw seen place mhm. kon kooku xam na ne kooku du seex Tidiane Dièye kon suñu demee def ko euh, du moom beneen bi mooy ku bëgg ñu dem élection Amadou Ba moo la ci jiitu pour man waa Pastef yi ni ñu yàkkamtee élection yi am euh, vingt quatre février wala vingt cinq février pour man Amadou Ba moo leen gën a yàkkamti e-, élection yi. parce que benn mu gañe ko gañe na mu perte ko gañe na. ah waaw. ci la wax parce que li tax gañe na mooy à à perdre appareil. lu ne mu si biir ko ci am ñoo xam ne bëgguñ ko ci ba di ko faqasal mm-hmm. ñooñu dana tax mu gën a jaaju même bu pertee après ñu nërmeelu dana ci am taxawaay bu mu lu mu poraat mu poraat exister politiquement te bis bu xoolee ba ñu euh, gàllankoor élection yi wala ñu def dara loo xam ne amul. Mm-hmm. moom bis bu ñu ko fi waajee bu ñuy jëlaat candidat moom keneen ay nekk candidat APR ku dul moom parce que problème bi mooy. moom dafa am fu mu roppee Macky Sall muy ci nopp France ak waa AFP ak PS ak ñeneen ñi nga xam ne nii ñu ngi leen doon marginaliser ci bennoo réduire leen parce que Macky daf doon wax naan day réduire opposition à sa simple expression mais Benno la njëkk réduire à sa simple expression maanaam dolli kooku tey amul kenn ku ci tekki dara ci ñooñu ñuy wax alliés yooyu. alliés yooyu nag voilà voilà non waxuma loolu partem la. mais alliés yooyu dalee leen a ratt bañ set wecc alliés yooyu biñ demee ba benn instant ñu nar a xam ne bu bëgg a jël bu xeefulu APR ku mel ni bun jon wala ke loolu arrangé wul euh, bennoo maanaam bennoo gi dut ñoom beneen Amadou Ba mooy gën a nekk seen candidat beneen bi muy France Macky Sall nag ndëgër laay li Amadou Ba am ñooñu gudd nañ ba mënu leen a tëb gàtt yi ba mënu leen a buruxlu loo ci mën a dégg neexu muy fekk la ci ndaje di jox nit ñi loxo bi minimiser la muy yegg fenn di la soofantal ak wala nit ñëw di la laaj naan ana mu mu pare di reetaan biñ lay investir sax nga waroon a am kàddu gu mujj gi ñu teg la ci fésal la buñ la tegul ci kanam fésal la fu mu nekk di la voler la vedette maanaam am te bu ko sa loxo bi laal kon loolu du Amadou Ba dañ ko ko defloo léegi nag mu des candidature Karim Wade mm-hmm. man sama problème ak Karim mooy. cuune gi mu cuune Karim Karim Bayel ñoo ah, damaa dégg yow yan sens ngay wax. ci ci ci point bi lañ ci non non non maanaam li nga ne ma loo laaj ne ma pour candidature. recours Amadou Ba rek ci nga yam waaw ah non damaa yaakaar dañ cee laawaale bu ñoom <laughs> Diomaye ak waaw non bu dee Diomaye. ba tey foofu tamit. Diomaye ak Cheikh Tidiane ak Cheikh Tidiane Dièye ñoom la la la concerné. su dee Diomaye. Uh-huh. Diomaye ak Aly Ngouille ak Boun Dionne ñoo yam benn mbir. dañuy wax candidature indépendant puis candidature indépendant mooy koo xam ne maanaam masuta milité ci parti politique wala ba mu ca gëjee lu mu néew néew matam at mm-hmm. wala lu géttim at kooku moom mooy candidature indépendant kon mu am benn prox ndoll bu mu desee mm-hmm. mooy bi ma dikkee ñaa amoon te yaakaar naa su ma juumut ndax sama sëriñ kiiwu doon ak ma dikkee ci candidature am 2019 damay laaj rek euh, foofu mooy la ko mayoon ma dikkee ñaa PDS la génne fraîchement coalition de parti tabbu ko ñu ànd ak moom coalition de parti moo tabbu Nguy Ndiaye tabbu Boun tab tabbu Diomaye tabbu euh, Habib Sy tabbu ñëpp kon ñoo la gën a xam ne duñ ci am gain de cause mais nañ ko def parce que dafa am ñu leen topp ñoo xam ne bato bi bi mu tàmbalee suux kaña yi dañoo tàmbali di tëb léegi faw nga wan gaa yi ne leen bato bi mi ngi fi ba ni bato loolu mooy tax gars yi di des waaye fi ñu toll nii xoolal gars yi léegi ñu dagg di commencé di leen romb léegi yii yëpp ay calmant la yu ñuy jox gars yi pour ñu xaw am yaakaar tuuti pour toog mais xam nañ ne ñu ngi koy def recours mais mënuñ ci dara parce que ñi ko def du ñuy dof mais Amadou Sall kenn gënu koo xam droit ci réew mi da naan maa ngi gis ñuy jël affaire ay ay ay ay CD kii nu mu tuddati euh, nu mu tuddati mm-hmm. code kii euh, waaye. Euh, des obligations civiles. Mhm. loolu nga xam ne association yi la concerne ak lu parti politique dafa am solo politique dafa am solo ci réew ba dama naan la politicien bu jaar yoon mooy ëpp màqaama sax kilifa diine ci réew. bu jaar yoon laa la bu ko def ni mu ko war a defee hmm. parce que avant dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam da hmm. ni mu sacré ni mu amee doole moo tax yooyu noonu ñuy tuddantu boolewuñ ci parti politique yi maanaam parti politique dafa mel ni lu ñu yëkkati maanaam fii rek la ñu jàppee politicien ne ab fenkat la ab wurujkat la ab nangam ñu bëgg koo kii looloo tax boolewuñ leen sax ci coow li parce que problème bi mooy mënoo nekk juste parti Cameroun ak Sénégal démb Sénégal ko ëpp doole fuuf bu fekkoon waa Cameroun am nañ possibilité rouge Kalidou Koulibaly waaw non non non déedéet déedéet non non man dama lay jox <laughs> exemple non comme moo nekk actualité ah, day baax ci nit ñi bu fekkoon ne Cameroun am nañ possibilité rouge Sénégal mhm. Kalidou Koulibaly lañu la ñuy njëkk a non non Lamine Camara la ñuy njëkk teg ci Sadio maane euh. ak euh, Kalidou Koulibaly danañ juróom la ñuy dese wala ñeen ñu ak Pape Gueye ñu duma ñu duma yu metti <laughs> maanaam du onze douzième jour Cameroun bi sax presque arbitre bi daanaka carton bi mu jox Habib Diallo li man nga ne par par mooy li nga xam ne moom la moom la DGE di non non dama illustré non non mooy li nga xam ne moom la DGE def ak ak waa jële nu mu tëddati Cheikh Issa Sall CDC CDC bañ a jox Ousmane loolu mooy li arbitre bi def démb xamoo loolu hmm. ka carton bi ñu jox euh, Abdoulahad Diallo noonu hmm. loolu doog nga koy teg te Sénégalais yëpp la naqari xool leen ko foofu ci match bi ni mu leen naqaree rek loolu la Macky Sall nekk di ñu def dafa la jël affaire yi moo tax affaire yi moom gis nga xoolal ñoo la gën a xam soit ñu gore tuuti ñu hmm. daan leen ndànk wala ñu dof dof ñu daan leen bu baax d'accord d'accord dinañu dinañu ñëwaat euh, imam ma dem ci yow wala waaw monsieur le ministre euh, yow aussi allié nga ci Benno Bokk Yaakaar daf mel ni Saa am na lu mu introduire contre les alliés nee na Macky Sall daf leen réduire à votre plus simple expression balaa muy ñëw ci opposition bi tey recours yi nga xam ne Amadou Ba introduire na ko di ngeen ci am yaakaar Euh, waaw xam nga Sénégal. Mhm. dafa nekk euh, une grande démocratie. Mhm. et puis dafa am aussi une grande justice. boo xam ne mu ngi ci réew mi. Mhm. ndax xam nga le jeu démocratique. c'est donner la possibilité à chaque citoyen mu mën a aspirer à une position. Euh, suivant euh, loi yi ak règlement yi ni ñu ko trailer donc soo ko seetloo ñun en tant que. allié de Benno en tant que Benno mhm.